internautes de Sénégo ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di kontaan di am mbégte saa su di ànd ak yenn si li nga xamante ne rek moom mooy suñu interview ñi amal di fi dalal ay ndaanaan tey nag ñu ñëw fii certifié ki nga xamante ne kenn dootu ko naatable si li nga xamante ne mooy conseil yi muy joxe ak ay astuces yi ay vie vie de couple surtout ñi nga xamante ne moom mooy les jeunes mariés muy rek maman Mbodia Mbaye tey moom lañ ñëw seet si fas yéene sëkk ak moom waxtaan bu yaatu si wàllum euh, sëy waaye rek si wàllum li nga xamante ne moom mooy jigéen donc nag dañ koy bàyyi rek mën di yokk mbokk internet Sénégal kawte fi koy euh, seetaan ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw maa ngi lay ziar bébé di la delloo wax nag maa nuyu bu baax di nuyu waa nan la sax. waa Sénégal ak kawteef rek. Ah, <laughs> waaw Sénégal ak kawteef. kon maa leen di ziar bu baax baax. <laughs> Euh, kaarkaala rek di la wax rek dalal jàmm rek waaye mbaa tàggoo nga bi ngay ñëw fii. waaw tàggoo naa de. Eh, maanaam kii nga daal pare nga pour lépp. yàgg na man ragaluma loolu. Ah, kon baax na. <laughs> man man loolu ragaluma ko amul benn problème dañ koy waxtaanee rek. ah damay gis xale dinaa ma tata am boo jiw da ngaa da ngaa métti da ngaa tàng. Ah. Ah, na te gis naa da ngeen maa ñimee nag. waaw moom ragaluma moom kon jeex na. <laughs> ragaluma mu ngi noonu ak Kawtef ñoom li nga xamante ne moom mooy gise bi tey mm-hmm. ngir ñu mën a waxtaan ak yow si li nga xamante ne moom ngay def donc tey Tata Mbodji euh, déjà balaa ñoo tàmbali di dugg si li nga xamante ne mooy le di du lap moo la dugal si wàllum def ay vidéo di ñaax di joxe ay conseil di di jàppale jigéen ñi ak góor ñi nga xamante ne surtout ay ndaw lañ di dugg si néegub sëy ah doom xanaa di doomu géwél rek mhm. ba pare teel a sëy nag mhm. teel jàng tamit mais xaaruma ba sëy nag soog a jàng mhm. waaw man moom li ma leen di wax rek 10 ans la ñuy jàng te man na damaa mës a bëgg mbir moomu nag ay waxtaanu ay góor jigéen. Mm-hmm. man de problème mu jàmbur sama yoon mu si nekk ah. Mm-hmm. depuis ma nekk xale ba léegi lijjantiwuma problème mu jàmbur. waaw man sama problème mooy tout le temps. Mm-hmm. su ma toogee maa ngi naan xale yu jigéen yi euh, dañ daan def foo suuf yooyu nga xam ni. xale dañu ko daan def ndeysaan euh, ñaari jigéen la ñuy boole. def kii jëkkër kii jabar dama naan lal nag sama lal ba mu tàlli. naa ko nijaay. tey si mën nga aye xam nga waaw fu mooy papa yaay doom xam nga yéen léegi da ngeen sinuise ndax téléphone yeeg internet baa ngi fii yéen ñu gën a sinuise ci côté boobu mm-hmm. mais dañ naan jël suuf lal ko nag man chaque jour nag man jabar ji laay doon mm-hmm. waaw ku keneen ki mooy sama jëkkër maa ngi dem marché di lal di tax cuuraay mais dama ko mës a bëgg boog dund boobu mm-hmm. ba tey jii sax avant may sëy dañ ma bu mag saana toog damay toog damay daan wax ak mag nag mag ñi gën a magal tool yenn âge dama daan wax ak ñoom mais lépp nag bi ma demee tey bu dugg ci néegu say gis ne génération bi changé na la ma daan wax lañ ma daan wax démb ak lu tay li bokkut mais capté naa lu démb capté lu tay boole ko dóor ko xale yi def ko seen maye nuyu xalaat tuuti. changement moo am astuce yu bees yi. waaw waaw lu nekk ak jamono waaw. Mm. parce que lu nekk ak li mu laaj. li mu laaj waaw te temps boobu xëy na xale yi su ma duggee ak ñoom foofu ba mu xóot xëy na duñ comprendre mm. mais damaa jël fële. cof mm. fii. doole ci léegi boo jëlee fii doole ci démb rek xale bi dina mën a téye sëyam dina comprendre kon nga xam ne sëy dafa xaw a raar nag bébé parce que boo xoolee appel yi lay xëy di woo ngay dégganteel ñu jokko yow ci tata nan laay ba téye sama jëkkër kon xam nga ne xale yi bari réer nañ te say mitti nag ak yomb ci kaw boo ko mënee mi ngi mel nga war a togg domodaa xam nga domodaa boo ko gisee ci toggin bi da nga naan dafa dafa dafa neex a togg déedéet boo demee ba ca laaxum fëriñ ma fa ngay gëppoo ci suuf mm. mën nga faa daan ndox mën ngaa laax mu dagg mm-hmm. nga laax mu baax nga réer wala mu am ay jeex na tàkk wala mu def ay ay dàllam di nàqi nàqi ci biir mm-hmm. moo tax mu jafee togg moo tax loo mën jàng ko mm-hmm. boo koy def day yomb mm-hmm. mais su la soo ko mënul rek da lay réer da ngay mel ni ko war a tabax ba bâtiment te defoo fondement tey <laughs> mitti day mitti waa day mitti mu mel ne dañoo far yooyu béy ah si say njëkk njaale ñu ne li nga xamante ne moom moo am maman Mbodja bu ay mag tay di waxtaan ba mu gën a nekk xale daan toog nekk si ay mbiram di foo di def li muy def. Mhm. ñu foog ne kii bàyyiwuñu ba bàyyiwu leen xel te fekk ne moom mu ngi leen di déglu di concentré di leen teg dil. ma daan jékki-jékki dégg ñu eh dugal fii yow. dugal fii ma demaat demaat fële toog jël samay xeeri weex dajale ko. Mhm. def samay wure mhm. mel ni ku déggul li ñuy wax. boobu maa ngi dégg yi ñuy wax. te yooyu ñuy wax noonu. yow da ngay espionné waate. yow koy waxal ba pare boole ci nag tamit dégg ko pare di say yóbbaale ko téye ko. dem utiliser ko. ba pare taxul ma bàyyi de. continuer waat di jàngaat di bàyyi waat xel ka ni lu démb la te ñun suñu yaay amuñu kees pour wax ak ñun. Mm-hmm. man tey su ma la juróon tey toog di wax ak yow mbirum néeg déranger wu ma. amoo sujet tabou aw ma ci si man ay sujet tabou yi man kaw bokk. Mm-hmm. parce que ñun dunduñu loolu. Mm-hmm. parce que tamit loo jàngul munoo ko tari. dama daan toog bu doon bu ma fekkoon man maa la jur tey toog ak yow. dama lay wax li nga xam ne moom laay def. comprendre nga bis bu ma la joxee sa jëkkër moo tax xale bu géwal en général xaw léegi de mhm. mais ñun suñuy yar koo ci maye woon parce que man 16 ans laa sëy macha allah mhm. ans yooyu ñu ne da lamb comprendre nga kon ay 16 ans 15 ans lañu daan maye. Mhm. boobu day fekk nga mokkal li ngay mën muy togg di yàq muy nekk lépp dañ la koy wax parce que amuñu kersa boobu loolu nag moo ñu safi ñun d'accord moo tax nag ma dem ba xam ko nag mhm. xam ne xale réer lañ ma bëgg leen a gindi mais waxuma ko pour vulgaire mhm. waxuma ko pour càgg waxuma ko ngir bon mhm. damay jàngale rek d'accord nañ xam loolu d'accord dinañ si ñëwaat léegi-léegi mais dafa am li nga xamante ne euh, dafay baax laay léeg-léeg ñu ñu ñu leeral ko euh, euh, yaa ngi koy wax léegi jàng si mag yu njëkk ya di déglu lu ñuy wax ngir denc ko pour ngir boo demee sëy mais dañu gis ne jamono ji lan moo tax li xëy na lu si bëri euh, yaay yi ñu bëgg di wax ak seen doom yi wàllum néegu sëy wàllum sex def ko sujet tabu am mu am kersa am rusel est-ce que nekkul ni jamono jooju ak ji baaxul parce que boo xoolee jamono ji xale yi lu ñu dégg rek dañu koy jéem a dem essayer pour xool la lay saf mm-hmm. waaw euh, yaay na waxatuñu ak doom yi ñu ci bari mm-hmm. te yaay yu ci bari ñoo am kersa seen mm-hmm. yaay yu bari dañoo am kersa seeni doom ñun baaxu jigéen sax boo ko mësaan a gis man nga koo gis baat mi dee sa yaay gis nga ko que boobu xam nga ni koy defee comprendre nga boobu di nga xam ni ñu koy defee donte xale tey ñoo gën a yeewu mais bu njëkk da nga naan ki ku koy def du naa wuy yaay sama nanga yaay xoolal li xoolalee boobu fekk na waxuñoo yow mais jigéen fépp foo xam daf fay jaar rek comprendre nga teel ko koo wax yow boo dee jigéen jur doom xam ni kii jigéen la te fa nga jëm fa la jëm nag parce que ñaan nga yàlla mu am jëkkër sëy te la nga dund fa la jëm si mais amul nëppatu amul sa yaay laa dama rus a wax ak yow lii non non man gëwuma loolu nee naa leen may naa sama rakk bu yàggu dara dama naan tëj sama buntu ni mu taxaw ci buntu bi ne ma di nga wax tey tey moom di ma wax lan nga war a def man ko suba laa la ko expliqué tey dinaa def nii dinaa def nii dinaa def nii donte ko def sax dama ko dugal ci boppam tey ba ma demee ba muur ko doongu des si barki Sëriñ Bamba oo ma problème loolu mhm. comprendre nga. dama koo muur a joxe ko. te xam naa ni moom ma ngay dund la ma ko doon wax. ndax pare na pare na yàgg na. mais est-ce que léegi xale yi seen yaay yi dañuy ragal parce que léegi xale dañoo xaw a sob bokkut ak démb lu dégg rek wala lu ma maman Mbodio wax rek amaana ñenn dañuy bëgg a dem testé ko. waaw moo tax amuñu jëkkër moo tax na man waxuma nag lu jëkkër nag. Mhm. moo xool ma samay vidéo man waxuma ay ay doxaanante yii de. Mhm. ay xale bu jigéen bi na def nii faram. <laughs> soo leen ko dégg de mhm. man jëkkër rek ba ma dikkee ni tëll tam dama ni sëy mhm. mhm. man mhm. dee doxaanante man jotuma ci di jaar man dama ni salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ne ma sëy baa nga ma toog di sëy kon jaaruma koo maîtriser ba mën koo xelal kenn du ma ci sori xanaa ñaax leen ñu góorgóor takk seen i sër foofu laay yem ak ñoom mais bu dul loolu man lépp lu ma wax rek boo ko téye sëy la waxuma lenn lu dul sëy man détails yu rek laay dugg parce que loolu laa xam mënumaa dugg ci ay woro mineur yi boole woo leen seen déedéet tey boo ma xanaa mineur yi xool samay vidéo jànge ci balaa ñuy sëy loolu laa leen ci sant de mais waxuma leen ñu dem te fare ko fa appliqué parce que man néew ma waaw néew ma kenn taal la safar cuuraay mhm. néew ma kenn tëddal safar néew ma kenn jurgóotal safar mhm. maccal daqaar safar waxuma ko kenn mhm. lépp lu ma wax dama la jëkkër soo tee sa jëkkër boo ko defee nii boo ko defee nee boo ko defee nii loolu laa xam de. Mhm. man farantuma bay jaar ci yooyu xaw ci yooyu leen. Mhm. dinaa leen ñaax nag ni leen en tant que xale takkal sa ndigg ndax góor bu defee ak yow ni def ak na yow def ak ni yooyu boo lëggee di nga pett lu bari ci moom loolu laa leen di ñaaxee. Mhm. mais man bàyyi lu dul say waxuma ko. dundu ma leen lu dul say man. say daal laa xam ca ti laa ne. est-ce que tamit jotul nga jël benn jour boo xamante ne da ngay jéem a xool euh, nan ngay def rek pour jagleel euh, célibataires yi vidéo ngir gën leen a ñaax ne tey uniquement célibataires yi laay defal vidéo ñaax leen. ah célibataire yi kat moom maa ngi leen di ñaax de xanaa gisoo bi ma fi defoon Saint-Valentin bi. Mhm. Saint-Valentin bi ndax yomb yooyu ñu leen di nax noonu maa ngi leen di ñaax de. Mhm. maanaam ma sama vidéo bu ñëwee mën nga cee jàng yow mi sëy mhm. mais yow mi sëy gute mën nga cee jàng ndax ah. vidéo boobu ma defoon Saint-Valentin bi gis naa ni gars yi topp nañ ko bu baax a baax te gis nañ bu baax li ma ci wax célibataire mënoo ko wax leen lu takkal sa ndigg lii te liggéey bañ ci góor loo am ñafeel ko sa bopp di defal sa bopp waaye tey tey ma am ci sëfay baax yi tey ma yor téléphone yu yi yaa ngi dégg mm-hmm. te nangu woo tàng boo xëyee tëdd sa kaw lalub yaay di woolu xees sa saw yaram ba mel ni nen doo gis naaj bu guddee nga génn toj dëkk bëccëgee nga tëddaat nelaw oo mm-hmm. ma leen lu ma leen di wax nag mm-hmm. parce que xëy na ñoom loolu lañ sentir dund mais célibataire am jom tey liggéey te basé wuñ ci góor ñu i soxla dagg bu mu gàcce yi bu leen góor defalee ñu defal seen bopp bu leen góor defalee ñu defal seen gis nga dëkk bi nag li muy toj toj yëpp taa jigéen góor ñu defuñu de xam nañ ñi toog de barke allah ci fàllu xam xam naa ne say xarit lañ waaye célibataire yi ñoom ñoo yàq di ah dañuy wax man waaw góor nag fu mu yàqoo jigéen nag fu mu yàqoo góor ko yàq oh, waaw <laughs> waaye jigéen itam bu mm-hmm. ah, na baax ndax mm-hmm. tey bu fekkante ñëpp peese nañ seen bopp xam seen poids xam ñooy kan surtout mm-hmm. bu fekkantee ko ñoom réguler nañ xool ñoom ñooy kan mën nañoo safe góor ñi mais bu la bu fekkee bu la góor ne jox nga ne ko maa ngi maanaam ñuy bañ daal kañ la problème bi rek nañuy bañ. nañuy bañ am dignité nag te xam li yàqu ci ñoom la ne. bu ñu seer nga xamoo ko dara kaw kaw la naa nekk seer doon wax rek. naa gore te dund. moo ma gën a gore te dee. Uh-huh. kon naa gore te dund. Uh-huh. comprendre nga maanaam man naa nekkub seer man seer ñëpp ba ma fi. Uh-huh. waaye man naa am sama dignité gàddu sama dignité ba nga xamante ni ndax ñun seer ñu ci génne woon de. tout le temps ñun seer ñu ci génne woon nga ñu daan doxaane. ça va booy na nga def yaa ngi ci jàmm man la <laughs> ça va fekk nopp sax. ça va bien si ngi waaw ñun daan daan nga génn ak ñun te la sax seeti. Mm-hmm. parce que boobu sunu yaay def nañ sunu bopp bi loo xamante ni mm-hmm. ñi mew ñu góor raay ñu raay bu sori. Mm-hmm. comprendre nga dama laa nopp. ah xaaral après dinaa si xalaat. fii ak fii ak fii ak ñaari weer waaw après moo ko sama yaay ñun pour ñu wax la nopp naa ko sax dinañ toog ak yow lu mat nee na yaay dañ lay dawloo. Uh-huh. comprendre nga uh-huh. ci kaw dawloo boobu après waaw. génn ba sax da lay mujj soof parce que raaya ki foon yëpp yu ci bari amul woon amul woon ñun danga nga naan seen sa copain mu toog nii nga toog ne bu jógee nga dugg nga sa mag bu woon la hee bul bu sa foofu nga wàññeeku waat mhm. anamu tey safe nañ ñu waaye magi góor yi bari tey yu daan ko tourné seeni rak di leen defar mhm. talatul leen ndax yaaye mayitul leen loolu mhm. sa doom day jongoma tegu ci yoon mu woon leeral na lii du yoon bu baax magam bëggoo taxaw pour régler ko nga yow yaay ji nga faxaas mag ju góor ji teg ko na le ni ko kii moo ma la gënal ndax moo may régler kër gi xale jigéen yor kër yi daa bari nag de. am pàcc moo tax pour bu koy defaru du yomb de. mais nan lañ ko yoree. ah xale bu amul jëkkër xale bu amul jëkkër. Mhm. xëyul gontul bëgg a fay ndox fay courant joxe dund ci kër. fay appartement fay appartement yow yaay dara du la taqari. Mhm. loo bëgg ma defal la arrêté yow tamit. mooy maanaam li nga xamante ne dañ koy lamlaamee. Eh, wax ju yàgg dafa ko moom tamit ñu wax ko rek man moom xam nga damay leeral si digg bi dafa war a leer. mooy ñi nga xam ne dañuy def la prostitution déguisée. waaw parce que nee nañ cagatu nekkul ne da ngay dem toog tax taxaw si tali bi rek. yor sa carte mais cagatu bu nga xamante ne day nëbbatu booboo gën a bon. booboo gën a garaaw bari na si kër yi yaay yi am na yaay yu koy xam sax léeg-léeg euh, te duñ ko duñ ko fësal. am na góor ñu takkul xale bu jigéen nekk ak ñoom ci biir kër di fanaan si di xëy di ñib liggéey te takkuñu la seen yaay di ci teg seen bët ndax sa njariñ li ci biir kër gi mm-hmm. waxoon naa ko maa ko waxaat te mm-hmm. maa koy waxaat mm-hmm. te lu ma la wax téye ko ndax du ma fi lu kenn amut yaay am nañ ci responsabilité am nañ ko ci parce que xale bu jigéen bu amut jëkkër sëyu yor téléphone bu bees sa fenêtre reer beneen bu rab beneen dëkk daan sa suuf xottaati jongo ba bëgg a dee ngay fay appartement lu mu gudd xee xeeb nga bu guddi bu tëgee sa yaay dina tëddal nelaw da ngaa sonn liggéey liggéey kër gi yëpp nga xëy mooy doon sa avocat ah yow tamit loo bëgg moom lañ lay defal mm-hmm. yow loolu ci kër gi say magi góor sax amaana bu ñu xawee ne doole tuuti kenn du ci feeñ mm-hmm. say magi góor rek bu ñu xawee waaye di tuuti ñàkk fee di tuuti yow yaay diri sa kër gi téye ko sa loxo di la kër gi mm-hmm. loo def baax na ah koo bett kat bu jigéen bu liggéey xëy gontu nga yeen ko kër loo gis yow <laughs> doy na waar a ah, li waxante dëgg na <laughs> ami ami internet Sénégal ak Kawtef ba tey ñu ngi togg suñu maman Mbodio Mbaye waxtaan nag si li nga xamante ni moom mooy euh, en résumé euh, xew xew jamono donc dañuy dugg rek tuuti si li nga xamante ni moom mooy sëy comme ni nga ko euh, njëkkee woon rek mu mel ni dafa am benn phénomène boo xamante ne dafa xaw a sonal góor ñi parce que def nga ci vidéo moom mu def buzz ah, askan wi yëpp di ci jàngat góor ñi wax ci seen xalaat jigéen ñi tamit wax ci seen xalaat ku si nekk ak li la métti ak la si neex muy euh, wàllum sexe oral bu ñu ko waxee ñu si bëri xamuñu ma ci Dakar moo tax ndax ñeen ñenn ñi duñ nandite xamuñu li nga koy dank dànkantale mais euh, sexe oral bu ñu ko waxee ñëpp xam nañ ko góor ñi ñoom dañ leen koy defaral ñu koy euh, dund muy neex ñu si am plaisir mais duñ ko faral ñu si bëri di ko defal jigéen ñi te boo laajtee dañ naan la jigéen ñi amuñu set gi mat ko bu tax seen xel di ko nangu ñu koy def. Ah, jigéen du setul doo neexal ne màccal Dakar nag. Mm. Dakar a saf ak Sénégal tuukaay la safut dara de mais Dakar day set nag déggoo ma la ne tax Dakar vidéo bi soo ko toppee demal na Dakar ji set rek raxas ko ba mu set dindi ma xotti su boobaa loo ci bëgg di nga ko am mais nag a màcc mais man xale yi jigéen loolu ñun ñuy woyal di ko wax ñun man jaaxal na ma de parce que vidéo yaa ngi woyal di dem nga gis que ni jigéen ñaa ngi toppatoo seen bopp kon léegi la ma tax góor ñi ñoom seen jabar ñoo setul mais yaakaar naa ne salte gi man pour man lu bari dañ na de. dañ ah yaakaar naa ko de wala wala bañ gi la rek ba tey parce que eh, am na góor ñu bari ñoo xam ne seen xel ko nanguwut daqaar ci day set ñoo ko dul nangoo màcc. léegi léegi astuce jox leen astuce xëy na ñu nangu. eh la astuce xoolal daqaar daqaar la rek. Mm. yaa ngi dégg mm-hmm. ku ne am nga sa daqaar te ku ci la ngay yëg sa daqaar la nekk. Mm-hmm. kon góor ñi dañuy bëgg nga màcc seen daqaar. Mm-hmm. moo ne ñoom seen daqaar des fois mu xaw am nu mel. moom seen daqaar dafa raaj raxas bi. dañ koy raxas ba mu set wicc ndax Dakar ci am na fu mu suudewu laaj citron waaw ñoom it ah dañ koy war di raxas ba mu set mm. da ngay gis góor gu ci di yendu caleçon fanaanoo ko ñetti fan ci yaram léegi ku ko jigéen ko war koo jël war war a màcc Dakar jigéen ñu bari na dañuy muñaale de waaye seen Dakar kii setul de ñoom it nañuy raxas ñii di raxas mm. Dakar moom kaay ma wax la ko buy góor ba bu jigéen ba Dakar joo ci war a màcc mm-hmm. te gisoonu set na mënoo koo màcc te man gis naa ne xale jigéen ñi ngi ciy joué nag ñu ngi raxasu nag mm-hmm. mais ñoom li ma leen di digal mooy mm-hmm. xale bu jigéen bu gisee mbaaxam ba pare. boo xasee bay jeegu liy nekk sa kanam. ak booy jànku du benn. Mhm. boo xasee bay jeegu lu nekk ngay gis si sa kanam moo tax il faut ngay farlu. Mhm. comprendre nga boo toogee di sangu jëlal njàmp raxas sa kanam ba mu set. Mhm. soo paree jël sa loxo bi laal ko saabu raxas sa kanam ba mu set mais silib guddi silib bëccëg. toute la journée nga def silib def baax teg ci tubéy teg sa ndigg teg sa kiwisaar waroo yendoog moom suba ba ngoon. boo ñëwee sumi sànni mhm. des fois nga fanaanoo silib bi mhm. ba xëyaat ñu mhm. ci bari nag ku la ci gën a rafet moo la gën a salte góor ñu li dëgg la de na koro sama live dimanche si passé maa ngi dégg koy bind ci commentaire naa sama jabar problème mu bokkutaan la bokkutaan yee xëy ñu neex wax dëgg nag wax nañ dëgg xale bu jigéen bu la ci romb di la cikki mel ne neen nga topp ci soo ko summee yuuxu xaaj bépp setuñu koo ci fekk fi mu dëkk doo ko naw la yéere buñ summee dañuy sànn lem yéere raasal ko seen problème la yaa ngi dégg loolu nag munoo cee boole nag bëgg nag boo tëddee ba ne ŋaañ bëgg ku la maccal Dakar Dakar day set kon ñoom it dañuy raxasu ba set te boo gisee sa mbaax jëlal al dànk bii raxas ba mu set mélange boobu jël ndox baxal tàngal ba mu tàng rek nga sottu ci tëj bàyyi ba mu yàbb nga naan ko lu mat une semaine day raxasi sa biir yépp te jigéen day bëgg ceeb mhm. ceeb day dem ba boo ñaqee sax day xeeñ neex mhm. soo tuuree ndox day xeeñ neex parce que ceeb dafa neex moo tax bambara yi di set. parce que ñoom dañoo mën nga toppatoo seen bopp. comprendre nga boo naanee ceeb jooju da ngay dem ba da ngay set et puis sa naq dafay am ndox. da ngay tooy. ceeb da lay tooyloo daal dànk boobu day def sa naq day am ndox parce que jigéen dafa war a tooy. doo am comprendre waaw yaa ngi dégg. léegi nag boo dee jeegu del tàmm di afal sa bopp. boo demul fenn bàyyi sa yaram mu circuler chaque jour ma wax ko. del féexal waaw del féexal génnoo mais bàyyi sa kanam mu nooy mais chaque jour napp. chaque jour napp si li bala ca gën a dang nga sol boo paree teg ci baa bëgg a yendoog moom ba ngoon nit non génnoo bàyyi sa kanamu mu afal léegi na loo soo ko jàppoo sa naq dina am toox mhm. di nga di nga di nga yëg jig ni yow jigéen nga mhm. te taar kàlla góor gu nekk yow dina xam ne tiim na jigéen mhm. te doo salte benn yoon parce que yaa ngi raxasu ba set kanam nag raxasu ba set mënu koo romp ak di moytu silib dang yu bari yi ci kanamu jigéen waaw célibataire est-ce que war naa naan li nga xamante mooy ceeb yaa ngi ko doon parce que ñu bëri ñoom dañ koy utiliser. ñenn ñi naan baax na ñenn ñi naan baaxul si célibataire waaw non non. boobu ayib si célibataire parce que même kii sax waru ko di jël dànk bi waru ko di naan lu bari. Mhm. parce que bu fekkee ëmb ci yow mën na ko dindi. Mhm. moo tax sa jamonoy règle boo paree règle rek mhm. mën nga ko naan bu jeexee nga bàyyi. ba say règle ñëwaat mais ceeb moom mënta def dara ci jigéen lu dul neexal ñàkk-ñàkk di neexal sa saw di bu du xeeñ du xeeñ sax yenn yi sa say say say di xeeñ neex ceeb moom neex-neex rek la moom jotewut ak al dànke dara célibataire mën na ko jël kay mhm. mën na ko jël amul amul non non parce que xet bi jeeg bi sëy li muy am moom rek la di am dañoo bokkul rek mhm. parce que am na bagage yi bari yoo xam mi ngi génn ci kii sëy te génnagul ci kee mhm. parce que amagul yoon ah, dëgg la ki am yoon ba nga xam ne boo nee jàkk moodu mu jaar fu ko saf bokku dëkk ki nga xam ne balaa moodoo jàll di càng ah day càng <laughs> <laughs> man daal damaa bëgg sama yaay ji yii leen neex dama laa bëgg xam nga internet yi ñoom lu ñu bëgg laa leen di defal te xam nañ ne man maa am fitu ñëw toog jàkkaarloo yow naa dina laaj <laughs> yéen nii mais nag mooma am na am na li nga xamante ni itam yaa ngi koy def te ñu bëri amaane yëguñu ko mooy xam nga damaa xaw sob nag yowale waxal waxal lu la saf groupe whatsapp bi nga créé mu ngi lëmbi dëkk bi groupe whatsapp bi nga créé maman. Hmm. gis naa ne kenn du la ko ñemee laaj waaye man dama la koy laaj. boo ma ko laajee laaj ma lu ma ñemee wax. groupe whatsapp bi góor ñi jigéen ñi il pare que sax am na ay kilifa yu si bokk te amaana xamoo ne ay kilifa lañ. ci dëkk bi moo baax. ñoo si nekk ah dugg si groupe bi ku si am problème nga étalé ko. léeg bu cas bi critiqué mu jël la PV nga tegal ko lépp te la si ba pare vidéo ko sànni ko ci biir groupe bi. te doo ci feeñ. nga bokk ci am cas. jël ma ci suuf. wax ma kaa bi ma xelal la ba pare def ko vidéo comme man la kaa bi daal. Mm-hmm. sànni ko ci biir groupe bi xanaa ma bëri sutura. te leen débat leen ci ndax borom cas bi mi ngi ci biir groupe bi. kese te dafa bëgg xelam. Mm-hmm. xelu ko ko ko xelal. Mm-hmm. te sa eh, xel rek mbirum biir nekk amul kilifa kenn. yëg-yëg yëg-yëg rek rek la. lu baax ñëpp ko bëgg. groupe booy dem di fay amal na la njariñ mhm. sama maman yaa ngi woon fa am solo si groupe whatsapp bi kilifa yi si nekk ñi nga xamante ne dañuy dugal seen bopp dugal seeni jabar seeni njëkkeek seeni wuju ko ba góor ñi ku la si déglu sax day xeeb li nga xamante moom la jabaram doon def waaw tamit parce que tamit ñu ci bari foogoon nañ ñu ngi dund àjjana mhm. <laughs> mais maa xam nga ne li may waxal ci góor wax ma kook jigéen mm. te gis nga groupe boobu am na règlement am yu bari yu ci nekk yoo xam ni ñu ko yor ñoo ko séq mhm. dañ ko fa nekk ci ay loxo mhm. amul dara yu ñàkk fayda nag yu ci nekk dëgg rek mhm. ni ma leen ko waxee nii waaye samedi ak dimanche waxal la la saf na la neex xam nga fii sax di nga toog ci internet bii di yem fii ak fee fee dañuy wax lu nu neex parce que sama groupe la man maa ko moom da ngay fay dugg waaw da ngay fay dugg kon loo fay ba dugg soxla nga ca njàngale te am na xale yoo xam tey ñi ngi seetu war a dem sax lim de meel jël ma ci suuf tata lu ma war a def bu njëkk da daan dem di xullee ko maa lay teg ci kot. kon léegi li mu demee sax yow da ngay teg nit ñi ci eh, axe. kan li mu demee xam nga mënoo ci wax nit lu mu dégg. Eh. parce que ma ngay xalaat lu ne. man la du noonu dama riita mbale ndànk nii naxanteeg booy bi napp ko. góor ku góor parce que ko jigéen waaw jigéen a waaxu waaxu ñay ci biir néeg parce que euh, góor ñi bu lay soog jël bees nañ lañ napp nag. commencé di génnee doon nag di tawee ko ko ñodde ay sikki doon ba yoo xamoo dara foofu nag bu sa demee ah mën na laa topp ba fii jaar ragal sëy ba faaw parce que góor ki ni mu lay jëlee la kooku da dem am affron da nga koy sama groupe kenn du ci génn di niil. di niil ni laa amu ci. parce que dama naan leen terewu ma leen lenn mais dara lu ñàkk fay newu ci ku bëgg a wax samedi ak dimanche biir néeg la. Mhm. mais du thème bi du mbir mi du biir néeg kese da ngay dugg tey wax ci vidéo yi Mboojam Mbaay mhm. ngeen jàng ci yow xale bi sëy pour nga war a téye sa goro mhm. sa njëkke say jëkkër yooyu la ñuy dugg biir néeg bi dañuy wax ci kaw lal bi. parce que kaw lal dafa am système yu bari yu xale xamut taaw bu jigéen kaw lal dafa am lu koy accompagner de ñaata jigéen ñoo naan damaa ragal sëy tata man ñi moo a sëy mais sëy bu na boolee sa jëkkër nga ragal sëy ana sëy bi moo tax du ma fréquente xale bu ragal sëy man bëgguma loolu. est-ce que du traumatisme bi nga doon wax sànq ñi nga xamante ne bu ñuy dem luñ jëmeel dañuy xaw a ragal. waaw jël bu ñu leen di njëkk a mën na la faa nappe mën na laa gaañ gaañ boo xam da nga fay ragal sëy mhm. moo tax sooy demee lim demeel la ngay taxaw mel ni ku ci ma sa jaar jàkkaarloog waa ji. palpe ko jeex ko tëltëlee ko. Mhm. ba xam ba eh ba dooleem xaw a wàññeeku tuuti nga affronté ko dara. da ngay jékki-jékki rek gis kañ ko dugg ca néeg ba ah. mhm. te gis nga léegi nii xale yi léegi ni ñu koy defee dafa yomb. Mhm. mbir mi bu njëkk la mitti woon mais léegi da ngay naxtaanante sa waay di jur góor yóbbaale say naat. di ko jur góor te ko ruqatee. man naat bi ci choisir tamit pour lan la. naat dafa neex. te ginaar ne fii. naat. <laughs> naat <laughs> ba mu tuddee naat la baax. ba xam ne naat daa manqué. Ah, daa manqué jéeg jëpp wëri naat. am na koo xam ne ma xàmmee mu fu dunq ne ma waaye bu dinaa dunq yëpp téye. ñëw waaw. Mhm. parce que dunq ginaaru naat dafa am lu muy liggéey. moo tax jeeg il faut ngay gëstu. sooy kenn du ko mokkal. te tey xale yi bari tey man man Mbodja Mbaye tax naa ñu ñemee lu baree bari parce que nag li ma leen di wax rek waxu jonge dafay yàgg mais dëj fàng ji may jaar ci digg bi di ko wax c'est très bu dee am na tamit bareetu wala léegi la am mm-hmm. Mm-hmm. que nit ñi dañuy am mais man maa ci jëkk a wax man Mbodia Mbaye taxaw ni leen carrément nag ma ci mm-hmm. ji ma ko xale kersaang leen di rey ci biir néegi da ngay tëdd ak sa jëkkër te du gis sa yaram mais lan mooy yaram sexe dëkk la nim di ko yàlla bind moo tax mu nëbb ko ne la mbubb solol tubay dëgg la orma mais dañ la boo tëddee ki la takk ci su na nga tëj sa bunt bii eh, man kenn du ma génneel jaan ci bax di ko dugal ci bax te xooluma jaan ci naan nekk jaan xool parce que yaa ko moom comme tel jaan ci natt ko ba xam fu mu toll nga mhm. soog ko affronté mhm. te kersa day handicapé biir sëy mhm. kersa boo amee sa diggante sa jëkkër sëy ba du neex te la nga bëgg doo ko ci am jëkkër ngay xool jabar jabar di xool jëkkër loolu mooy dëgg sàll ak Ousmane boo fa duggee tey yi tey ci boo xale bu ci judd ba gisoon lamp nii lay def day wër dañ naan nii lamp bi gën ko dajji mu topp lamp bi kon nag yooyu mu judd a topp lamp waxatu laa mën mhm. mhm. daal di <laughs> ah, man <laughs> day rafet day xees kon boog day leen taal lamp yi ndax seen doom yi di xees waaw waaye bu bu leen di taal yu verte yu bu lay de day leen def rouge ndax muy xonk liir bi di xees di rouge a waaw day rafet waaw day rafet mu rafet bu dee seen seen lumière nag lii tam day changé couleur ah. maanaam daal lëndëm bu mu lëndëm daal. bu mu lëndëm. lii bu lëndëm day ñaaw lamp bi soo ci lëndëmee doom ci sosu bu ci doon ñu dem. day ngungu mu ŋaar. bu jooy sax <laughs> parce que lamp bi mu sosoo moo ko neexut. fay lamp gi ko nañ koy taal lii bii belli yaay ji belli papa ji di belli doom ji fa sosu am njariñ. dëgg la d'accord wax na lu lu am solo mais nag dañuy dañuy dem rek ci beneen aspect maanaam euh, dëgg la sëy nit ñi dañuy faral comme ni nga ko waxee dina ak jamono bu njëkk ba amoon na yu bëri yi nga xamante ne xewul maman mooy ay gadget ay ay ay ay cristal menthe ay ay ay feuille ay chocolat ay ay beurre ak lu nekk nga gis meew ak lu ne ñu koy def si li nga xamante ne mooy awra góor wala awra jigéen donc na nga ñu gisoon nga def benn vidéo nga ne lii di cristal menthe boo sañoon dañ koy bàyyi di ko def si awra góor parce que daf koy tëleloo yow coppatal cristal mm. yow mi toog rek daa jël cristal nga coppati ko seex maman nag li muy wax mbirum sëy gis na ni ma naturel sama teint noir bi mm-hmm. noonu laa naturel si lépp man damaa naturel ci lépp man ay mënaatu yii dugg ma ci mm-hmm. même togg sax su ma tiimee ci li mënaatu ma li ma xam laay def mm-hmm. togg ko yegg ko taaj ko jox la nga lekk comprendre nga maanaam mënaatu yenn yi mooy lor nit ñi cristal nga jàpp ko yow ñemewoo ko parce que damit bu ndaw boo ci jël mu xaw laa rey say bët di jooy say bakkan nga bëgg jël nag sexe góor def ko ca tanaante bën bën ba nga ca taamu nu ko ca yomb day wàññi ngóor góor mant bu bari moo baaxul ci moom mant day bàyyiloo cëri ji cëri góor tali góor du jigéen pourtant ni góor di tëlee noon la jigéen di tëlee parce que tële jigéen mooy jigéen ju yëgul dara nga tiim ko mel ni ko tiim sama coin bi mbëkk mbëkk ba sonn mu la ndax pare nga kooku moom daa tële yoom na yëgatul dara waaye góor nag moo kën a bon parce que góor léppam sidit la nga téye jëkk góor rek di ko mant di ko mant ay noppam di jooy ay bëtam di jooy sikkimam wàcc ay karamam ras nga naan fi ma ko woon démb te jeeg ju baax dañ ciy bàkku ah yii démb li ma ko def démb cristal bi laa jël defoo dara mm-hmm. eh taaw bu jigéen mm-hmm. jëlal ma lem mm-hmm. jël pas macc ko ba suukar si dañ suukar si bu dañee nga sànni ko ci lem ji da koy batt ba mu jaxasoo nga def ko ci frigo mu set. tuuti menthe bu naturel. day saf menthe naturel menthe bu neex a ngi su boobaa boo tiimee micro bii nii danga ko ciy sotti ah. yi. Ah, mooy mooy mooy bii nga yor rek mooy bii mooy bii nga yor rek boo ko <laughs> jëlee yuréet sotti. Uh-huh. tarkaal lu la leer rek mi ngi nii. Mm-hmm. mooy musique bi rek. nga di ko jox su teet noonu ca mant ba. Mm-hmm. fekk yor nga naat gi. Mm-hmm. te xanaa xamoon naat googu balaa neex dëgg nga sànni ko ci ci ci biir kii bi. ci biir lem ji mu ànd ak moom ci frigo bi. moo tax ma ne la nga donk ko ci kaw nga nga lem ko ci kaw. naat ci suuf loolu waxin la dégg na la góor goo ci tiim. aman ah, dégg naa xëy na internet eh, musa leeru di la taggal say maam te jigéen ñi tamit nañu def bu ñu yëgee dara nañu tagg góor ñi xam nga defoon naa fi vidéo boo xam ne góor gu war a yëg boppam da taaweeku bopp ni zëmm ni armoire xam koy jooy di waxtaan waaw yu mel noonu boo def dee ku góor ki deel yow ku ma dégg neen da lay gën a jox envie sax continuer koo eh, tiim mu jabatu am def envie lu mu def da koy xeeb bala nga koo xam koo nekk ak yow ba nga commencé sa bopp sax di ko bàkk te yàlla suñu borom maa la nëpp nag bàyyi diw ak diw ak diw njaay jaata njaay gaynde njaay ndakaaru njaay oh lii moom foofu noo ko mënee day rey góor oto góor dañ koy bàkk day attiré wu day def ba def lu mënul mhm. boo xëy ko ah. uuf démb li bala def <laughs> loolu bu koy téye góor. bu paree day meraat rayanteel ak moom àjjuma ci guddi samedi nga xëy xam nga du liggéey. ci kër gi lay ne des fois ko ay démb démb koy dee sa jëkkër ñu kenn du xam li xew. kenn du xam boo ko ñu nga xëy nit xaalis ci kër gi naa ko li ma la def démb déedéet. da nga koy cabaxal mu koy reew mu koy reewaale ngay bàggante ci kër gi door say way di ko wan ni guddi gi neex na. Mm-hmm. su boobaa day yàkkatiwaat guddi jot mu defal la leen lu raw loolu. kon néeg dafa am système yoo xam ne koo bàkk mu bajantu. d'accord nga bàkk jigéen mu bajantu nga bàkk góor mu bajantu moo tax ku ci tollu fenn fi mais bàkkal ki nga nekkal wan ko di tarkalla li ma téye nii maa sama bopp. loolu mooy mbir mi toog ni sëmm rek ni ni ni ni alkaat. ni alkaat ah tamit neexul nag ah commissaire bu war tamponné fooy bu mu gisagul. loolu la doo def noonu doo consolé mm-hmm. da ngay bàyyi yàqu. di la raas di ko wane tarkalla bu dul wane yow lu may dundee ci Sénégal. Mm-hmm. yow laa bëgg yow laa nopp ñëwal. Mm-hmm. ba pare rek. di ko akalu ko ci kaw dégg na ñuy fayu. na ñuy fayu waaw góor da jigéen dafay dafay jonge dëgg la moom lañ ko jagleel mais góor yi tamit nee nañ dafa war a jonge waaw jigéen day moo ko day romb jonge góor ñi ne ñoom comme dañu ne ñoom nan lañu war a def pour jonge jonge mooy di apprécier seen jeeg ji mm. xool ni nga jongama tey ji macha allah mm-hmm. tey nga jàkkaarloo si jëkkër nii rek war koo lamsal waaw ku sa ñëw bi dafa rafet tey yaa ngi pilli sama jabar ji dafa rafet de mm-hmm. xam nga wax ko jigéen day daal di gën a kontaan ko ah mu ne yow xam nga ne man nëbbu ma kenn mm-hmm. yow laa noonu mm-hmm. jigéen tamit danga koy bàkk góor gu jonge mooy apprécier sa jabar mm-hmm. loo am jox ko boo gisee lu rafet jënd ko àndil ko bu guddee bu defee dëggis maam yàkkamti laa gis nga gis ko ne ko ah bi rafet na wuu ku la jaay lii di daf la jàpp sax ñaar nga ko jëndee moom bii seerul de dix mille rek laa ko jënde mu ne la def dolliwaat naa ci 10 000 muy 20 000. waaw waaw ndax déguisement bee rafet. Mm-hmm. foofu neex des fois nga may liberté sa jabar. mu a sawar mu tëdd nga tëdd nii sa jabar ñëw tëdd sa wet ngeen tëdd di waxtaan. Mm-hmm. des fois ngeen am lu ngeen def daal di bàyyiwaat waxtaan yu continué waat yooyu yëpp tam dafa bokk ci li neex jigéen. te mm-hmm. kaay ma wax la nag bébé jigéen ñu bari li lañ manqué nag. seen jëkkër yi waxtaanuñu ak seen jabar yi. attention waxtaanuñu ak seen jabar yi nag mm-hmm. vraiment. apprécié wu leen ji ji jigéen ñëw togg lu neex taajal la ko. Mm-hmm. lal nappam bu baax toog nga lekk ba suur mu dee ji nga ne ko neex na bari na wàññiwul dara. Mm-hmm. neex na bari na wala yow sa plan bi neex na ah? bu dee da ngaa tubaab bi xam nga bu dee góoru géwél yi dañ naan la ah neex na bari na. ñun loolu dara ci ñu yaa ngi dégg mais nga xam dañoo tubaab bi nga ne ko ah plan bi neex na ah? c'est bon ah? <laughs> c'est bon. bu nee sa bon sax nga xam yóbbaale benn sa bon sax bu nee mais dara lekk ba pare koy jël bool yow xooloo lu mu sol mm-hmm. xooloo sañse bi ci guddi gi xooloo cuuraay lu neex ji xooloo fer yi mu takk xooloo dara lu mu la bégale jigéen ñu bari nag ñoo dem ba bàyyeeku. Mm-hmm. ñooñu est nekkul doguma la ñoom ñooy nekk dem di dem si yeeg ah, génération 2000 gi. Ah, waaw ñu leen nii mais nag ba bàyyeeku ci mbirum néeg mm-hmm. ndax seen i ñoo leen si poussé ndax i jëkkër ba dem na dañ naan coono bi ñuy daj ñun di jël suñu xaas di jënd di def di préparé mm-hmm. kon jaratu ko tataa toog noonu ñu ci bari maa leen di naan la bu leen bàyyi ndax su ngeen bàyyee moo leen di découragé loo ba tax ñu ne mënoo dara ba toppwaat ci kii am bu dee dafa tële sax bu dee dafa tële kenn réeratul mboojaa ngi fi ñu mel ni ngi fi mhm. xale yi ku ci bëgg xam-xam lépp a ngi lënd ba dama kontaan ci internet nag célibataire bu ñëwee ne la yaay dama bëgg jàng mbirum sëy donte amaguma jëkkër di nga ko accueillir waxtaan ak moom kooku laa gën a soxla ki xaar ba am jëkkër moom mhm. dafa dafa dafa retard dafa retard ki xaar ba am jëkkër dafa retard day wut lu mu doole waat te la mu mën mhm. mais ki jàng ba mokkal tee kooku bu demee pour mu tari ko day yomb waaw ndax tey ji man maa ngi bëgg a jàng mm-hmm. lire message mm-hmm. bëgg a lire lu ne mënumaa mm-hmm. lire parce que damaa retard ci njàng mi ba ma waree jàng jàngu ma xel bi day fattu daal waaw kay léegi nag looloo ma bindal boo ñëwee ne ma lu ma la jàngaloon dem xamatuma ko waaye nag fi mu boo ma lu ma la jàngal ci ngéwal gi ma tari ko parce que dama ko a jàng te tey ba ma bindalee sama tur xaw ma ko kon lépp loo jàngul doo ko tari léegi lii mbir mi mooy célibataire yi nga xam ne duggaguñ ñoon laa gën a soxla ndax xam mbirum néeg taxut a yàqu taawu jigéen xanaa xamoon léegi lañ koy garaaw rek mais jigéen bu njëkk xale yi jigéen ñun suñu génération bi dañ daan toog di waxante ci góor ak jigéen ba nga nit ñi jeex mhm. di waxtaan ak góor moo tax xam lu bari mhm. parce que góor xamante ni tarkala dinañ la ko wax ci lu ñu war a dund mhm. ñii seeni jabar mën dañ des nga taal vidéo boo xam ku góor ko ci bopp moo lay faram fàcceel vidéo ba mu leer di wax li ki wax yëpp man maa ngi koy dund démb 2STV maa ngi ko def am na ci koo xamante carrément dafa ma te carrément lii nga wax ne dara du ko dindi ndax mhm. man lii yëg lii moom laa manqué góor jigéen ñi ni yëg nii yëg nii la ñuy defee mhm. da lay topp di wax ba nga jël oto mhm. kon xam nga ne am na góor ñuy souffrir donte jigéen ñaa ngi souffrir tamit mais man góor ñaa ngi souffrir mais man na taaw bu jigéen bu ma la waxee dëgg man pour man jigéen warul seetaan borom këram muy souffrir. souffrir mais tata tamit doguma la mais est-ce que jotul itam euh, boo nekkee ak nit muy sa borom kër wala sax ngeen nekk yéen ñaar même sa xarit sax bu la dara manqué si moom est-ce que jotul nga toog parce que waxtaan la nga ne ko kat parce que nit mënul jàpp lépp mënul xam lépp nga ne ko ah lii kat sama jabar wala sama sa jëkkër nga ne ko lii kat bu suma sañoon ngay def lii man bëgg naa li lii neex na ma est-ce que loolu itam manqué wul tamit si couple yi ba léeg-léeg ñu naan ay kii deful da te fekk na xamul li nga bëgg tamit par waaw moo tax nag ñu réer mhm. góor waroo xam li bëgg da ngay tëjee tëjee ba téye fi mu bëgg mhm. nga tiim góor ci kaw lal mhm. toog naa ko kan ma fan ma safa point faible da làmb rek koo nekkal benn weer ñaari weer ñetti weer war ngaa xam fi nga xam foo ko téye mu yuuxu da nga xam ne xale dañoo tale loo du looy laaj looy liggéey la ba ni ko jiix téye jigéen dem na ba toj yóoru góor ci ay ses sesam kese la ko toje toogu fa di ko laaj toogu fa naa ko nii plan de laa xam ne togg su ma toggee plan bi neexu la du ma ko du ma ko kii boo ca lekki nag laa koy xamee nag du ma la ko laaj mhm. bu ma ko taajee togg la taajal la nga tëb benn kudd ñaari kudd ni ma neex na bari na suur naa mhm. damay xam ne bii neexul dama koy tegandi pour l'instant. toggaat beneen. gis nga lekk ci ba suur ma visa boobu. bu subaa ma changé waat waaw sëy bi la soo xamee ni ween yaa koy téye téye ko fa. Mhm. te point faible nag du benn place kese de. Mhm. moo tax neexut a laaj nit ki. Mhm. ndax boo yàggee téye ween te yàggoo téye bu yàggee boo ko laalee ween dootul yëngatu dootul yëngati la reeroo ngay changé. boo téye tey ween weenu mat weer gis ni mi ngi vivre bu ma tee weer bàyyil foofu wëral feneen. maanaam da ngay sopp. point faible benn place. d'accord. da ngay wër rek. bu teyee fee koy daane bu subaa fee gën koo daane. amaana sax moom sax du ma du xam ne sax fii nii. moom du la ko wax ko. Mhm. amul ku ko ciy xam nag man pour man. xamu ko yow looy liggéey la rek. Mhm. yaa ngi dégg mhm. ñëw nga daal yow carrément yaa ngi làmb. foo tee tey mu yuuxu. bu subaa teewaat fa mu yuuxu bu gën subaa demal feneen xool. boo teeyee foofu tuuti mu ne zëmm nga xam ne du fii. nga changé waat fi la sa xel joxaat nga gën koo avancé. gis mu sa leer nga teewaat foofu. noonu l rek. d'accord mbir mi noonu kesal xool rek fa muy gën a bët yee di jooy nopp yee fireeku nga fii force mais góor moom il faut nga di ko xool ci kaw lal di ko décortiquer waaw di ko xool nii tey ci poqutaan bi laa war a jaar ginnaaw suba ci nopp bi tey ci sikkim bi suba ci digg bopp digg bopp sax day daaneel góor mm-hmm. d'accord digg bopp sax day daaneel góor mm-hmm. sa loxo teg si kaw naq borom kër sa koy daaneel mm-hmm. naq bi da koy daaneel des fois nga ñëw te léegi léegi nga gàtt koor yee ci suuf day daane góor te foofu am na ñoo xam bu la ko najalee nga doyal mhm. dootoo ko bëgg parce que te téyuñ bi mhm. te foofu luy gaañ góor da cee bokk waaw moo tax da koy téye ndànk parce que góor tey boo téewoon tey seet sam buddi fii ba suba mën na ko bañ a yëngal mais bonoo nit ki foofu rek mhm. foofu xam nga am na plaisir foofu da nga koy téye ndànk mel ni ko comme ko téyeloo bëggul rek est-ce que donc bi nekkul ne foofu nga koy kii nga koy digal nit ñi non donc amul foofu yoon donc ko ca feneen fa lay def ah. <laughs> ah man dama lay <laughs> <laughs> yaa ngi jàngal xale mais tax xale yëpp yàqu ñëpp vulgaire léegi man ko loolu laa ci bëgg dañuy jàng mais noonu la dañuy jàng ku mokkal tari kenn du ci dem ba wéetal sa jëkkër naan maman Mbooja moom wóoruma woon a wax lii mbégte ga nga cay dund mm-hmm. yaa koy dund moom mm-hmm. yow yaa ko cay yëg maman Mbodia boppam la géré kon nag loo jàng ci moom ba mokkal boo ma ne yaay yóbbu ah. jeex na loo jëjëg yow la yaay yuuxu yaay saleeru. je jeex na je m'en fous <laughs> maman Mbodia moom lañ dalaloon si suñu euh, émission fii nii nag nga xamante ni mooy Sénégo ak Kawtef euh, nii rek lañ koy daal defee saa su nekk nag gis ngeen jëm nañoo def ramassage si li nga xamante ne moom mooy am si wàllum sëy si si jigéen ak góor moom nag li mu wax leer na du célibataire yee ko tax a jóg. pour ñuy appliquer na marié yi di appliquer célibataire nañ denc ba ñu am borom kër. boobu leer na moom nañ denc de nañ jàng. jël ci leen intéressé. Mhm. jël denc bu ñu amee jëkkër yóbbu. mais waxuma la nga jël ko di ko yóbbu ca ñànk ñànk mhm. ko yóbbu li fara ki copain waxuma mhm. loolu. yow téel boo mokkale yóbbu sa borom kër loolu mooy sens bi. ndax fi ku leen may wax. te takkuñu la ba ñu rëgëj rëgëjee la ba sa yaram yépp summeeku. dañuy pare dem takk ki nga xam daa formé toog ci wetu ndeyam. bala yow ngay jëmbeeru ci dëgg bi dootoo am benn njariñ kon jigéen boppam la am moom it nañu góorgóorlu loolu lii du pour ñoom pour ñu yàq seen bopp nañ ko denc pour bu ñu sëy jee waaw loolu laa wax. yéen xam nga laa bëgg a tàggatooweel ma maanaam mbirum fer yeeg yooyu xam nga fer yi daa bëri façon. waaw te bëri ban lañ ci war a sol boo solee nuisette ban nga war a def boo defee sër naal li ban nga ci war a tegat ak yooyu góor ñi neen jigéen ñi. xamuñu si fer yu dijj yi mu ngi leen rek parce que dañ leen di gaañ. <laughs> allahu akbar <laughs> moo tax man la benn góor bañul fer. Uh-huh. te takkin bala. te takkin bala. waaw. Ah, amul góor gu bañ fer ca takkin bala ndax fer dafa bokk ci li yee góor mais na koy takke dafa am feri dijj fa dang am yu dem ba jub dijj yam mooy naan toj xaw ma lan. non non boobu ba dijj fa mooy toj bi. waaw waaw am na bu topp ci moom. am bu toppaat ci moom am bu toppaat ci moom am bu sew bi soo ko ñëw. mooy doomu poobar. waaw ah. bu dee doomu poobar bu dee bu dijj bi dafa am loo nombre boo ci war a takk. Mhm. bu dee bu dijji fëtang boobu toj boobu ñaar nga ciy jël te boobu sëri weex pellal yi ma fi doon yooyu lay àndal mooy nocc bi ñaari koy gunge yaa ngi dégg nga teg ko ba mu boo defee ñaar da nga ko ciy riimale ba mu ñëw ci ndigg li am na jigéen ñoo xam bu ñu takkee fer fer bi day dem ba ci ndigg li rek mu dafa rat toog waaw sa dagg bi la waaw mhm. ca dagg bala ndax moo tax xale bu jigéen surtout doom boo ko ba mu tàmbalee toog jëndal feri sew di ko takkal mhm. day dagg ndigal jigéen day dem ba naq bi ak biir bi day séparé d'accord boo takkee fer rek boo dugalee ci baat bi rek day mara si ko demee dégg foofu. Mhm. mooy palaasam. Mhm. te fer à chaque fois day tiim kanamu jigéen. Mhm. te fer bu tiimee kanamu jigéen lan la fa góor wuti ba mu di ko gaañ. ci naq ba la nekk. yow te yow dara ñaar nga ciy takk. ñaar ba pare fer boo ko boo ko boo ko takkee da nga koy gunge. da nga koy gunge xanaa déggoo na may def nii. muy gësën gësën yi waaw. sa doxin balaa. même booy dëgg tànk bi sax nga ko da nga ko ah waaw di di yokk ki boo yéeg ci digg lal bi di renforcer galañ gi <laughs> bi boo ci yéeg doo yoot da nga koy déclaré que ni maa ngi ñëw baa di mm-hmm. booy tëdd dafa am nooy tëdd sa tànk bi nga naan dëj ci digg laal bi fer bi dina yàq mm-hmm. waaye dina yeewu mm-hmm. <laughs> mooy tànk bu diis bi moo tax jigéen ñu ci bari man fi doon nii ñu ci bari bu ñu xëy dañuy tekki seen fer lonk parce que tey bu mu rombee dëgg dëgg tànk bi rek da ngay dégg mun a rajax comprend nga bu njëkk nag am na ji mag ñoo xam defuñu woon ker kersa mhm. parce que borom doom bu góor day takk fer mhm. ñoom lañ lay romb ni dem seen yoon mhm. man tey su ma ko takkoon fii damay mujj tiit damay ruus dama koy wàcce dama koy dindi parce que su takkee romb la foo jaar kee sama parce que su ma doxee rek lu dox bi dal dal dal ndigil day waaw day yëngu moo tax nag boo xamee ni da war a tëdd noonu ko koy defee góor day gis nga góor gu fer yeewul man xaw ma si yow lenn kon ma xam ne yow war ngaa yéeg ci néeg tugg tëj bunt bi xool yow la kan fer ak bruit bi ci fer. Mhm. bu jaxasoowee sa nga sànni ko nga ne ma làkkatil ma ko. léegi nag boobu ñaar wax kay ñaari koy gunge. Mhm. ba pare ñëw ci bi ci topp nga nga renforcer ñett. ñett mhm. ba ca toppaat nga def quatre. quatre cristal bu sew bi nag douze douze laa la ci wax. douze waaw foofa toj. douze lay doon. rangaloo ci ndigg li ba pare nuisette bi nga koy def fii lay yem. d'accord ba tey dafa am nuisette yoo xam rob bi yem fii. boobu tam da nga def da nga ciy diggal ñett yi dijj. ñett waaw. d'accord comprendre nga mhm. parce que fer balaa ngaa xam ne fer am njariñ mhm. nga jàkkaarloog sa waay mhm. ngeen di tëlante fer yaa lay feelu ca kaw naa ko taja naa ko raja naa ko taja kooku mu am woon parce que fer yee gën a déclaré guerre bi góor des fois mu feebar sa tëdd nga làmb yaram bi tàngoon ko da ngaa mu ne waa tey daal damaa xaw a sibburu takka sa fer waddu sa benn fer bu weex ah man tey ma mën ni sax damaa sonn gis nga boo tëddee booy tëdd ba ni taxañ tëdd boo nee wëlbit foo jaar <laughs> nga ñëw day lambatu. <laughs> waa day lambatu. taggin nga rajax googu la dul la waxee. Uh-huh. foo jaar mu jéem a jóg tañax tañaxe lijjanti ko fa dëtt. maa mu xool li rajaxe fan la jógee barke Seydina Mouhamed ni ma ni ma li ma leere ni uh-huh. loo xam bi nga comporté wootut dañuy téye góor ñëpp. Uh-huh. ñëpp naan nit. patt la ñuy def. parce que am na loo xam boo ko dundee ñoom c'est fini. te góor boo ko xasee ba tàmbalu neex ba moom ko c'est fini. d'accord mënatoo def dara dara lu mu gis. dootu gis sa def dootu gis sa daal ndax lan néeg baa neex moo tax néeg soo ko gañee gañe nga lépp mais boo ko tëlee tëlee nga lépp waaye biir bi tamit si la bokk ah moo tax maa xam nga ko ma ko laaj man ko mm-hmm. togg nga sëy nga ñàkk sëy da ko war a mën mm-hmm. comprendre nga mais kaw moom mooy bopp bi mooy bopp bi jigéen nag joo xam ne bëgg ngaa ñor si jëkk góor ñi bari nag lépp naa nga koy wax ni ñu ah, feebar de ay bii lañ yor ni fukk fukki ran di ko lipat di ko lipat jéeg nañu togg def seen ginaar yi doore mm-hmm. roof ko poobar ba mu saf ba pare def sa jinjeer ju baax mhm. seddal guy jox sa jëkkër mu naan ba pare loo ko laaj mu jox la ko mhm. mais góor gu na ñàpp xiif ma ne ñaraas nga ne ko yow papa commandé fa benn àndaale fa bi yaa ngi ñëw indaale benn pizza wala sawarma mu dikk ñoox cee ñooxo ñoox pizza dafa diis mhm. da koy ñoox nelaw comprendre nga kon jigéen première jonge mooy set mën a togg neexi reer bari jàmb man lal batu la sa jëkkër jox nga delloo ko. doguma la kon nit ñi bu ñuy wax naan boo bëggee sëy sa borom kër bëgg ko attirer bu ko toggal lu diis danga koy jox plat entrée nga koy jox. reer guddi reer guddi dafa neex. mais boo bu paree na nga soog ko renforcer nag. waaw bu diis mu dem tëdd. nga ko bàyyi sax mu reer ba suur. Mm-hmm. ci li nga togg yaa xam ginaar la yaa xam la doon. Mm-hmm. moo tax gis nga jigéen dafay bëri surprise. Mm-hmm. ba ci déguisement yi ñuy sol. nañ ciy góorgóorlu. des fois nga gis lu rafet danga ko sa jëkkër dencal ko mu ne tëll benn jour a nga sànni ko ci armoire bi ko solal suur ko ba mu neex jox ko mu sol yaa ngi dégg noonu la reeru guddi demee bu ngeen reeree ba suur bu la neexee def sa ju nooy ñepp sa sappa gólor yaa def sa soow mu far bàyyi ba mu ci lal bi caakiri xam nga dafa weex tàll nga def ko caleçon bu weex tàll napp bu weex tàll waddoo sël bu weex tàll digga sa ñetti fer pellal ko toog muy lekk caakiri caakiri bi du yegg si put bi moom <laughs> xanaa nag li xam nga di yegg si put bi. waaw da ngaa bëgg a xamal ay laaj ayca dama mais na ko lekk. jëlal kuddu ñam jox ko. mu saf sàpp gëlër yaa nga jox ko mu ñam daal ah, bii neex na de. Mm. bu neex na dawal la ba tam fekk na xuja toog di ko xaar. Mm-hmm. <laughs> astafurlaa. maman daal da ngay dajal dajal daal foofu laa yam. damay bi. Père Góor dafa am. non non fer góor amul fer góor amul. mais jigéen mën na takkal góor fer. mën na takkal góor mais nag ba tey man taamu ma ko. man takk moom fer moom takkal ko góor ki accompagné la. Mm. góor moom ba ci déguisement yi nga xam dañ ko jël di ko deseene. Mm-hmm. di ci deseene ay sexe ak yooyu. di ko jox góor mu di ko sol bëgguma ko. bëggoo ko waaw dafay jigéene. Mm-hmm. góor da koy ormal ci biir néeg. seulement mm-hmm. bu weex tàll unique. dara dàq ko mais jaay jonge nag dem jël si seulement ak euh, sa caleçon desee na ci mbirum jigéen ay tëddanteeg yooyu noonu yëpp jox ko sa jëkkër mu sol ko man bëgguma loolu loolu ba tey dese naa neex caleçon bu weex tàll rek ku loo looy def na yow ku jigéen ki yow def ko mais ku góor ki mhm. euh, ay déguisement yooyu du yëfu góor du yëfu góor bokk si ngi noonu sama xale yaa ngi rek saa ñëwee wax ñii daal lii la def kon maa ngi koy sant baax di ko gërëm moom ñu ngi soog a gisante mhm. waaye itam ci doomi la bokk ma coxor googu kër mm-hmm. Mm-hmm. am jël ku leen ñàkk wuti leen ndax yéen sans yéen kenn du feeñ nag dëgg du neex moo tax ku leen cofi di jaay tiital ba ngeen réer ko mm-hmm. ba liggéey jëmmi jamono dina soxla boobu du amu problème kër gaa sama kër def ak yow émission du dara ci man kon ngi lay jaajëfal di leen wax xale nañ kii ma gis nii <laughs> kii ma gis nii ak lim fi teg dëgëñ na lu bari. <laughs> yaa ma jàngat si yow laay jàngat kon jeex na doomu mama Mbodj nga. jeex na ñu ngi noonu ami internet euh, Kawtef ak tey mama Mbodj lañ moom si pàcc gu bëri euh, du ñàkk itam euh, si ayu bés incha allah dinañ ko daal di gisaat si li nga xamante mooy plateforme Sénégo ak Kawtef ñu waxtaanaat leneen loo xamante ne day soxal jigéen ñi góor ñi waaye plus particulièrement li nga xamante mooy vie de couple may remercier bu baax sama cadreur muy Beydi waaye di remercier Aada mi nga ne moo ne nekkoon euh, si wàllum dawal bi di leen jaajëfal bu baax di remercier Dave si collaboration bi kontaan naa bu baax a baax sama frère di leen jox rendez-vous très prochainement di là restez en compagnie de nos programmes merci beaucoup